démb confiance nga indi ci combat. waaw dañoo gëm liñ liggéey dañoo liggéey daj coono. Uh-huh. amateurs yi am nañu ne sa combat ak Mor Kankan. non man laa mujj ñëpp laa fi nekkal ku pare pour pare aaraf man pare naa. mais ma quoi nga wax amateurs yi lay seetaan.

Ngagne Ndiagne dafa def benn sortie say staff nañ la jàppale bu baax a baax loolu lan la ñuy wax. waaw ah, loolu loolu gën la a ñaax la waaw ah, ah, bu baax a baax a waaw di sant ku mel noonu mu wax ne yéen ñaar ñëpp ay doomam ngeen daanaka combat bi si émission la taxawee mu def analyse am lu rafet lu mu wax ci yow lan lay def en tant que mbër bu am abonné. la loolu dañ koy yàlla rek Père Ngagne dafa baax rek nekk suñu papu dañuy door ay conseil bu baax a baax waaw. mais dara yaa ak ñi la wër ma ñi nekk sa ginnaaw sax ñu ci bëri xamoo leen. non man sama encadrement dafa yaatu. waaw ah, dafa yaatu trop trop trop macha allah. Mhm. yaa ngi xel bu baax a ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. instant yéen a ciy liggéey wala. ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. lan moo tax nga ni dafa yàqu. dafa yaatu. dafa yaatu waaw dafa yaatu. Ada li la bëgg a laaj en tant que doomu faas ama Fass ku ne làmb ne Fass Mbaye Gueye Dafa Gueye tey nga judduwaat macha allah nekk doomu faas di représenté Fass Fass yëpp jóg topp sa ginnaaw loolu lu muy def ci yow nga gis su su démb Dafa Gueye bi ngay tus daa ñëw taxaw loolu soose ñooñu ñëpp ñëw toog ngir yow loolu lan lay def ci yow en tant que xale. ah loolu jom la rek jom ak ful la mat sëkk lay def suñu ndaxte loolu yombul ñaan doon nañ doon nañ ñaan loolu yàlla suñu borom moo ngi koy soog a def ñu koy sant yàlla bu baax a yàlla na ko yàlla may ndam dimanche incha allah dubul moo ñu fi indi suñu la da may borom baax la waaw di nga ñaanal yàlla ndam rek xalaat nga ko combat combat ak Quench gaawee comme ni sa combat gaawee démb incha allah rabi champion la jàmbaar la suñu la dañuy conseil bu baax incha allah loo xam ne am na sa open press nga pare presse bi xaar nga wax nga dem gars yi mujj a dem ñoom tamit mu andi benn saar ñàkk a déggoo loolu loo ci wax tey presse loolu dañuy tub di jégalu ñun presse bi ñu lañ fi nekkal ñun ñoom lañ fi nekkal ñu ngi jégalu bu baax a baax presse bi loolu noonu nekkul suñu sago ndax de bu bi ñoo bëri woon waaw bu bëri woon ay rumbaay moo tax loolu mais ñoo ngi jégalu bu baax a baax. macha allah mhm. kontaan ci yow jaajëf. Eh, eh,